jëmm ji moo bind livre bi dëppee ko Serigne Cheikh Anta Mbacké grand militant de la fois et du travail di maam Cheikh Anta Mbacké nekkoon royuwaay ci jàmm yàlla ak liggéey mu ngi wuyoo ci turu Serigne Amidoune Mbacké ibnu Serigne Sidi Mbacké mi nga xam ne mooy xalifa Serigne Amidoune livre bi nekk livre bu am solo lool ñu xayma ko ci 180 pages di nettali ci tënk dund ak liggéeyu maam Cheikh Anta Mbacké ak liggéey bu am solo bi nga xam ne def na ko ci lislaam ak liggéeykat bi mu doonoon woon ak Serigne Touba Serigne Amidou Mbacké di xam le ne ndaw ñi dañoo wax di bind royee ko ci Cheikhul Khadim tarixa yi nga xam ne ñoo nekk ci reew mi maam Cheikh Anta Mbacké mi nekkoon na koo xam ne ku amoon ak ñoom ay relation yu rafet la boroom daaru salaam ak gaawaan nañu koy faral di woowee nekkoon ku taqoo lool ak Serigne Touba Serigne Amidou Mbacke di leeral ci livre bi exil bi nga xam ne defoon nañ ko maam Cheikh Anta génne ko ci réew mi yóbbu ko ci réew Mali ca dëkk bañ naan Ségou livre bi nga xam ne Serigne Amidou Mbacke bind na ko ci maam Cheikh Anta Mbacke mi nga xam ne maamam la ay kilifay diine kilifay politique kilifay aada ay professeur ay gëstukat mbokk xarit ak wëllëre ñu bëri teewoon nañ jotaay bi ña fa jël kàddu rafetluwaat bu baax a baax livre bi nga xam ne Serigne Amidou Mbacke bind na ko waaye rafetlu taxawaayub maam Cheikh Anta mi nga xam ne royuwaay la. objectif Serigne Amidou Mbacke ci livre bi bokk na ci xam xamle liggéeyub maam Cheikh Anta ci mbind ndax mbind moo nekk loo xam ne day des mu nekk lool mën nañu cee jàngee topp bëgg sa réew nangoo liggéey lépp jaamu yàlla lal ko. qui va assurément avoir une place de choix dans nos bibliothèques respectives. Je veux évidemment nommer Mame Cheikh Anta, grand militant de la foi et du travail, que je considère personnellement comme un véritable chef-d'œuvre et que j'ai l'insigne honneur mais aussi le fardeau de vous présenter. Je suis Khadija Toumbake. Je me joins donc à tout le monde et plus particulièrement à la jeunesse Makembake ici présente pour féliciter l'auteur, Serine Amidoun, pour son magnifique travail qui ne laisse personne indifférent, mais également pour lui témoigner l'admiration sans limite que nous avons pour sa personne. Vous êtes une véritable fierté, Serigne Hamidou. Cher public, permettez-moi d'abord de vous présenter l'auteur de cet excellent ouvrage que vous avez entre les Petit-fils de Mame Cheikh Anta, Serigne Hamidou Mbacké est un qui s'investit pleinement dans l'étude de l'histoire et des enseignements de Cheikh Ahmed Bamba. Il est auteur de plusieurs articles sur la Mouridia en général et sur Mamche Anta en particulier. Conscient des enjeux de son époque et des défis qui attendent sa génération, Serigne Amidou publie aujourd'hui son premier ouvrage intitulé Mamche Anta grand militant de la foi et du travail, divisé en quatre grandes parties. Dans la première partie, Serigne Hamidou nous décrit comment était Mame Cheikh Anta. Il nous parle de sa naissance, ses parents, son portrait, son éducation et sa formation, son attachement au la découverte de Darussalam, l'étape de Touba et le sens de la responsabilité de Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, plus connu sous le nom de Mame Anta, a vu le jour à Porokhane en 1867. Cependant, les sources ne s'accordent pas sur sa date de naissance, car il a qui situent l'événement en Il est le fils de Sokhna Anta Ndiaye, cousine de Sokhna Diarra Bousso, mère de Cheikh Ahmed Bamba et de Mame Anta Saly Toutefois, les sources s'accordent sur le fait que Mamshianta était d'un Sa taille très élancée et sa forte stature imposaient le respect. xaaj bu njëkk bi mi ngi ko tuddee kan mooy maam Cheikh Anta moom la tuddee xaaj bu njëkk bi foofu nag daf ci leeral gane àddunaam moom maam Cheikh Anta. leeral ci tamit askan wi mbokk indi tamit ab tomb ci dundug soxna su tedd soosu di soxna Anta Ndiaye mi sëñ Omar Bamba doon wax léegi di way juru maam Cheikh Anta soxna Anta Ndiaye Mbàkke indi na ci benn tomb boo xam ne ci moom lay wax indi na tamit lenn ci njabootu soxna soosu soxna Anta Ndiaye mi ci biir téere bi ku mel ne sëriñ Mbàkke Anta mi nga xam ne mooy taawu sëñ Mor Anta Sali ak sëriñ Afe Mbàkke mi nga xam ne doomi soxna Anta Njaay la ak soxna Faati Anta ak soxna Anta Sali Mbàkke leeral na ba tey foofu relation yi nga xam ne moo doxoon ci diggante soxna soosu di way juru maam Cheikh Anta soxna Anta Njaay digganteem ak soxna Jaara Buso radiyallahu anhuma loolu sëriñ Xaamidun indi na ko ci téere bi ba tey ci xaaj bu njëkk bi sëñ Xaamidun leeral na melokaanu maam Cheikh Anta soxna Xadijatu wax na ko léegi ci jëmmam ni meloon taxawaayam ak it ba ci sax couleur yaramam lu ci nekk ak lenn ci ay jikkoom lu ci nekk ñëw na ci téere bi leeral na it ak ndawam bi mu doonee ndaw ak fi jàngee njàngum alxuraanam ak njàngum xam-xamam ak ni mu bëggee woon Serigne Touba mooy li sëñ Omar doon wax léegi diggal nga xam ne moom lu jiitu. sëriñ bi di woote amoon na ci moom cofeel ak topp goo xam ne ba sëriñ Touba doon ko misaal ci ne ko seex de bi mu may topp xamut lu ma toppe xawma lu ma lu ma toppe loolu tamit mi ngi ci téere bi leeral na ci dëkku sëriñ Touba bii di Salaam ni ko sëriñ Touba sancee ak li taxoon mu sanc ko ba ni mu ko raxaatalee maam Cheikh Anta ba ni sëriñ bi tuxoo foofu dem sanc Touba ñëw na ci téere bi dëkk yi maam Cheikh Anta sanc fu mel ne gaawaan nga xam ne mooy ñaareelu dëkk bi maam Cheikh Anta sanc sanc wala bi maam Cheikh Anta am ñaareelu dëkk bi mu am loolu indi na ko ci téere bi am na tomb boo xam ni daf koo jagleel ni Cheikh Anta nekkee woon koo xam ne ku ñeme responsabilité la kon loolu moo aju ci xaaj bu njëkk bi ci livre bii di le grand militant de la fois et du travail ñaareelu xaaj bi sëriñ Xaamidu mi ngi ko tuddi tuddee ci wolof yëngu-yëngu maam Cheikh Anta ci koom-koom ak ni mu daan taxawoo réew mi noonu la ko tuddee loolu it daf koo tënk ci tomb yi may bëgg a lim ba ba ca jëkk mooy ni maam Cheikh Anta nekkee woon baykat bu mag ci jamonoom leeral na ci ba ca topp crise economique bi fi amoon ci ay jamono ci atum 1919 taxawaay yi yu am solo yi nga xam ne moom la ci maam Cheikh Anta defoon mënees na cee tudd par exemple vingt cinq vingt cinq mille tonnes ci ak ci ceeb yoo xam ne maam Cheikh Anta jëndoon na ko ngir séddale ko population sénégalaise bi euh, ñi dëkk ci réew mi rawatina néew ji doole yi loolu it mi ngi ci biir livre bi ba tey leeral na ab li liggéeyu maam Cheikh Anta ci wàllu tabax mooy li sëñ Omar doon wax léegi ci wàllu tabax ak yenn kër yoo xam ne it ci moomeelu maam Cheikh Anta la nekkoon boo duggee ci livre bi di ko ci gis lu mel ne euh, kër goo xam ne fii ci ndakaaru Cheikh Anta amoon na ko ci fu ñuy wax rue Rafanel soriwul dara ci wetu plateau ci ndakaaru nee ñu foofu maam Cheikh Anta amoon dafa kër loolu ñëw na ci téere bi euh, daf dañ wax na sax ba ci téere bi ne da ko luye woon benn naar boo xam ne mi ngi tuddoon madaa euh, Madadi al Qatri dafa na noonu la tudd loolu tamit sëriñ Xaamidun indi na ko ci téere bi ba tey ci biir téere bi ci xaaju ñaareel boobu sëriñ Xaamidun leeral na ci dëkk bii di tuubaatul ak li taxoon maam Cheikh Anta sanc fa leeral na it ci biir téere bi liggéeyu commerce mooy yaxantu bi nga xam ne maam Cheikh fesoon na ci lool te daan ko def muy import export ak lu man di doon rek loo xam ne lu sunu borom dagan la daganal la ci wàllu jënd ak jaay ndax na ko sëriñ Tuubaa waxe woon rek ne jënd ak jaay moom sunu borom dagalal la ko ndax wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba fekk boobu dafa am ku ko doon laaj koo xam ne dafa yóbbante sëñ Modou Lamine Diop ay laaj ci sëñ bi ne ko boo demee nee ko damaa nekk fii di yaxantu te xaw ma ndax am naa ci ndigalam déet ko sëñ Modou Lamine waxee sëñ bi ne ko nee ko am na ci ndigal ndax wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba ne ko ndax xam nga lan mooy riba mu ne ko mu ne ko mooy bum ca sàcc bu mu ca fen te na moom rek sumaal bi mooy capital bi ne ko bu ca lool dajee rek mën na koo def kon mel na ne loolu it mooy li maam Cheikh Anta doon def ci wàllu jënd ak jaay te sëriñ Hamidou leeral ko ci téere bi. waaw mën nañoo mën nañu actualiser avec euh, les actuariats parce que dañu naan le franc d'or bi ñu amoon dans les années 1920 ba 1935 moom la ñu woowee ngurt maa ngi ko woowee ngurt benn ngurt bu ci nekk mënoon naa jënd fukki kilo ceeb ak juróom-ñaar fukki kilo ceeb ak juróom-ñaar euh, boo xoolee. Euh, xam sax quantité d'argent bi mu joxoon euh, Ngalandou Diouf ba mu koy jàppale te li mu doon jàppale Ngalandou Diouf li Ngalandou Diouf xeexam ak Blaise Diagne li mu bëggoon rek jàppale diine yamale euh, citoyen yëpp taxoon na mu joxoon ko cent soixante quinze mille francs d'or cent soixante quinze mille francs d'or dem doon doon na toll boo ko doon xayma tey ci cent soixante quinze mille francs million mu leer na loolu xaalis bu tàkku la boo xoolee ba sénégalais yi matul un million cent 1920 25 euh, mille tonnes de riz boo ko bëggee xam multiplier les 17 millions tey par 27 millions nga xam ni li mu doon lu mu joxe woon ci tonnes de riz ëpp ëppoon na donc ay 450 mille tonnes donc euh, liñ ci jàng mooy ndaw nga wóolu ko jox ko dëkk boole ko ak ay nit ñaar ki at mu nekk koo xamante ni amaloon na njëriñ réew mi amaloon na njëriñ tarixam tamit. Euh, li yëpp solo tamit mooy relation baatin bi amoon ci diggante Serigne Touba ak euh, maam Thierno maam euh, maam Cheikh Anta Mbacke ndaxte rafet na nga gis ni bokkoon na ci mag ñi njëkk a gis Serigne Touba. damay tenir sama benn professeur boo xamante ni professeur Djibril Sam donte du du jullit donte bon c'est un athée kii am solo waaye day buy nettali histoire boobu da ngay mbégte bi muy am ci euh, buy nettali mag ñi ko gis Serigne Touba biñ ko gisee euh, ñoom ñëpp seen rangoñ dafa dal seen dënn waaye bañ ko xoolaatee fierté bi ñu am ndaxte xam ni Serigne Touba mi sept ans yu mu dem géej yëpp la mu bëggoon am na ko